ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا وداء ومنزل man la docteur Balla Mbacké Mboup di médecin dëkk fii Saam nekkoon médecin chef de région léegi nag retraité ñëw ubbi fi cabinet médical. waaw cabinet médical bi euh, gannaaw bi nga xamee ne liggéey nañ ci administration ba jeexal ci ci lañ am xalaatu ubbi ko fi fii ci suñu kër ci Saam Jaxate ngir euh, yombalal paj mi ci diwaan bi nga xam ne fi lañ dëkk muy Saam Jaxate ak li ko wër waaw loolu mooy mooy objectifu u euh, cabinet cabinet médical bi. tey nag la ñuy lancé activités yi tey lañ koy démarré ñu démarré ko par une campagne de consultation gratuite boo xam ne tund yëpp euh, ñi ci soxla paj dañuy ñëw fekk fi ay prestataires am na médecin généraliste am na pneumologue am na ophtalmo am na chirurgie dentaire am na it médecine générale ak infirme soins infirmiers ak pharmacie nga xam ne lépp lu ñu soxla ci wàllu faj ci fànn yooyu ñu mën ko ci am li nga xam ne soxla nañ ko ca jàppandiwul tey ñu jox leen rendez-vous beneen bis ñu woo ay spécialistes ñu ñëw euh, faj leen ci anam yi nga xam ne moom moo gën a jàppandi. cabinet médical bi moom pour le moment cabinet la boo xam ne soins de base yi euh, dana ko def toujours maanaam gannaaw bi nga xam ne ubbi nañ ko tey euh, bis yi ñëw yëpp ku ñëw da nga fi fekk soins de base yi maanaam da nga fi fekk consultation médecin da fi fekk sage femme am na accouchement am na soins infirmiers am na aussi médicament. léegi nag ci soins yooyu la ñuy dépister maladies yi nga xam ne soxla nañu ay spécialistes di fi ñëw. nga xam ne ku am jabet mbaa nga am HTA mbaa nga am cardiopathie dañ lay dajale woo nag spécialiste mu ñëw euh, daal di lay traité fi defal la bilan yóbbu ko ñu traité spécialiste traité donc loolu mooy Yinde ji soins de base tous les jours soins spéciaux euh, sur rendez-vous. wér wérukaale moom bi nga xam bi nga xam ne dem naa ba nga xam ne léegi retraite bi jot laa jàpp ne euh, ab médecin moom warul retraité waaw ndax mbokki askan wi dañ koy soxla fu ñu toll ci laa xalaat nag def ko fii ci Sam Diakhaté Euh, dana baax ci ñi nga xam ne ñoom fi nekk ak ci tund bi euh, donc depuis 3 ou 4 ans maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy di ko def ndànk-ndànk euh, bi ma demee retraite nag ci mois de mars 2020 ci laa ko accéléré jot ci nag ndigalu sëñ Mountakha moom moom ci moom ci gën a ñaax parce que moom wax toogal ci dëkk bi ca liggéeyal liggéeyal sëñ Touba fii. di ko defee ci laa accéléré travaux yi nag ba tey jii pare na sax bu yàgg commencé woon nañ activité waaye tey nag def nañ def lancement officiel bi nga xam ne yëpp dañ koy bokk yëg. ñu defaale aussi promotion kabine bi loolu moo mooy inauguration mooy mooy tournée inauguration privé privé ku koy def euh, Touba foog nga def social ndax xam nañ ne fi ñu nekk nit ñi euh, seen am am demewul noonu waaye nag xam nga nu ngeen xamee faj aussi dafa laaj coût dañuy wax la la santé n'a pas de prix mais a un coût am na as tuut soo xam ne faw nga génn ko pour pour def ko ci waaye nag danañ ko jàppandil ba nga xam ne ku ñëw mën ci faju bañ nañ ko ba sax prix yi ñu fi def euh, fii buñ ko doon méngale centre de la war a doon ndax médecin fi nekk ay médecin fi nekk waaye prix yi ñu fi def day doon prix poste de santé rek nga xam ne prix infirmier la loolu yëpp dañ koy def pour bëgg nit ñi mën a jot ci paj mi euh, ci anam yi nga xam ne gën naa jàppandi waaye nag ñëpp xam nañ ne privé aussi ku koy def ci Touba gi foog nga def ci social du def privé dur boo xam ne da ngay appliquer ay tarif yoo xam ne day day day doon tarif privé waaye foog nga dugal ci social social boobu nag jël nañ ci en compte bu baax a baax nee na am na soins de base euh, boo xam ne am na consultation médecin am na consultation infirmier am na consultation boo xam ne sage-femme dana fi am am na sax dafa tawat moo tax ñëwul euh, ak accouchement ak suite de couche yëpp dana fi am maanaam accouchement bi sax moo ci ëpp doole ndax gis nañ ne jigéen ñi euh, dañ ko soxla lool ci tund wi te foog ñu dem ba sori am na ci ñu dem ba guy mbind waa ñu dem ba Fawzeyni di ko fa wute donc accouchement moom moo ci gën ab solo consultation gynécologique consultation constation euh, consultation postnatale ak accouchement ak planification familiale yooyu yëpp ay ay service la yoo xam ne danañ ko fi amal dana am na consultation médecin ak consultation infirmier euh, ak ak ak médicament surtout médicament d'urgence yi waaye comme ni ma ko waxee léegi bu ñuy def consultation générale dañuy dépister waale ñi nga xam ne soxla nañ spécialiste xool leen bu ñu demee ba am ci lu xaw a takku ñu woo spécialiste mu ñëw fekk leen fi faj leen ku am cardiopathie mbaa nga am feebaru xool mbaa feebaru estomac mbaa te nga xam ne médecine générale rek mënu la arranger dañuy woo ab spécialiste mu ñëw seet la bu jaree ay examen yoo yoo xam ne examen yu sophistiqué la ñu ko dañuy collaborer ak hôpitaux yu fi nekk yëpp nag pour que ku jóge fii mën a dem ci ñoom ñu yeggalal sa faj bu ko jaree waaw kon noonu la faj ni bindoo autorité la moo xam nga moom moom ku defar barab bu mel nii euh, d'ailleurs tey ci cérémonie ci ngoon sax invité nañ ci autorité invité nañ ci maire invité nañ préfet invité nañ ci chef de village loolu yëpp dañoo bëgg ñu xam ko waaye ñu xam aussi ne ku defar lu barab bu mel nii laaj na jàppandi euh, ci wàll bu mënti doon hmm, boo xamee ne dotation médicament am nañ ko Euh, xëy na ñu dolli ñu ci tuuti même district sanitaire sax euh, woo nañ ko waxtu waroon nañu fekk ñu yow li ñu ci bëggoon mooy aussi lépp loo xam ne programme de santé boo xam ne mi ngi koy dogal ci district bi ñu def ko fii bañ ko yemale rek ci curatif ci privé waaye buñ ko fii def it dañoo bëgg ñoom aussi li ñu li nga xam ne moom la ñuy dimbalee poste de santé di ko dimbalee centre de santé ñu mën ñu ci dimbale ba nga xam ne danañ mën a wóyal faj yooyu loolu mooy cri gi nga xam ne moom lay lancé Euh, autorité district bi muy médecin chef de district ak région waaye di ko lancer préfet di ko lancer maire di leen wax ne ñun population bi la ñuy jàppale te ñoom puisque population bi fi nekkal kon ku jàppale population war nañu la jàppale. cabinet médical Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké di suñu sëriñ di borom Daaru Minam xam ngeen ne man euh, waa Daaru Minam laa sama wëlëranteeg sëñ sama baay ak sëñ Abdoulaye jaxate moom ma fi indi ba ma dëkk Saam Diakhaté waaye sëñ Moustapha Bassirou moo doon sama sëriñ léegi sëriñ laa nekk waaye tur yu nag ci sëñ Xaadim ci boppam laa ko jëlee. parce que moom moo wax ne bu fekkee ne da ngay ut tur rek tur tur nit rek nga koy jox jox ko tuddee ko sëriñ Basiru ndax foo sëriñ Basiru fa la xam-xam yem te yéen li ngeen def xam-xam la loolu moom ci moom laa ko jëlee ci moom laa ko jëlee waaye am na tur yu bëri yu ma xalaatoon waaye moom moom wax euh, tuddee ko sëriñ Basiru bii ñuy def moom gratuit la waaw bii moom gratuit amul amul kii moom dañ koy def pour nit ñi xam ne cabinet médical am na fi xam nga ne bokk ngeen ci yéene bi sax def nañ ay ay annonce def ko ci télé yi def ko ci réseau yi Euh, ut nañ crieur public aussi mu yéene ko ci gox bi pour nit ñi xam ne am na cabinet médical bu fi nekk waaw euh, bi moom gratuite la waaye bu ko weesoo bu ñu ñëwee moom consultation payante lay doon donte wax naa ne léegi dana am social bu bu ci loolu laa bëgg def dama ca doo yeggagul rek waaye bëgg naa peut-être chaque six mois wala chaque un an bu ma ci ñuy jàppale comme spécialiste yi ñu bu mel nii gën a yaatal paj mi ci askan wi. waaw di sant ñëpp rek di sant fi ñëw yëpp di sant mbokk yi di sant waa Saam Jaxate di sant waa Saamu Sëñ Abdou Latif soo ba léegi ñu ngi fiy ñëw Euh, kilifay sàmm sëñ sëñ Abdou Latif yëpp ñëw nañ fi kilifay njaxate sëñ xaadim léegi mu ñëw fi euh, maa ngi leen ci sant bu baax di sant mbokki saam yëpp mbokki tubaay di sant it sama mbokk yi nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp ñoo fekkee bis bi waaw di leen sant yéen it presse bi ndax fu xibaar bi yem yéen a ko fa yóbbu te maa ngi bëgg ñu collaborer ci loolu ba nga xam ne cabinet bi promotion bi ci waram danañ ko def incha allah